مع اليمين واليمين والخال ذكر اليمين لكلكلي وجسدي أحببت رب العالمين مع اليمين واليمين والخالص ذكر الأمين كالكدي وجسدي ناجيت سار سلاسي بنو بما خر وليك ولي كان وسألني عن الزديد نا بتوحيد الله في منتهى ولم يكلني لها وفري وبلدي إلا يا خاد في سفر خلي غيبي بسفر مستغنيا عن النفر جده في خلدي لم ينوي مبارس وفيدنا ببارس إبليس لا يبارز جند العزيز العدي لم ينفني من اخترع قوما لخلف المراد وليخوض في الخراد ربي يا معلم اجعدي الله كان لي بما يبغي العالم سبما حدا ولي قوة بما هذا وخير قدير هدية الله المهين ساخا لخير اللعين واليوم بالله يهين من ساءه وفي خدين مدلي الله البصر بجاه سيد البصر ولي يمن نصر فمن فما لم يفدي علمني الله العلي بما يسع من وصب خدلي بالكرام منصرفا بسفدي ناجيت ربي الكريم بكتب ليس طريم أنوارها وليرام أحمد خير صفدي الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين فيما على المكملين عن روحنا وجسدين الله رب العالمين صلى على الحاج الأمين بما عليه المكملين عن روحنا وجسدي آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Maha. là từ lời hiệu منيراتي ساكرا كاللوه والنار liman haba mi ma kharwa khamasnaniya بتسليم بلا حدد هرب الراس نزير الكمال يا مصطفى نبيك المصطفى بساله نما وكن بكل يا بعد وما كنا في بعد وما يا مصطفى نبي المصطفى بصالحين معا وكن بكل بعد وما كنا ma ne xasida gi jeex na ñaari loxo ca kaw ñu màggal Seex Balla Fall jor na ko ñaari loxo ca kaw ñu màggal Seex Balla Fall jor na ko نمانه كل كل في بعدنا ما يا مصطفى نبيك المصطفى بسالهين ما وكن بكل يا بعد وما كنا مصطفى بسالهين

زوجتها هذا لولا المولى بذاته برست ليلى بزوجتها هذا الحد يا الحد لا إله المولى بتاعه لا màggal Cheikh Abdou Karim jor na ko ñaari loxo ca kaw ñu màggal Cheikh Abdou Karim jor na ko loxo ca kaw raynin balla faaluy dem gànnaar si yaara jin faara fooda raynin mu ne ko jóg ñu màggal Cheikh Abdou Karim yàlla ba gaaw dem bàq ya jóg leen taxaw ca kaw ñu màggal Cheikh Abdou Karim jor na ko jóg leen raynin saara gannaar siyaara ji il faara xoo daaray ni ku ko yàlla mën na làmbal adee Balla Fall jox ko sëriñ Seex Abdu Gay ku ko joxe ren yàlla na ko joxe déwén doole faara xoo

taxa jaka ñu màggal yonente bi jar na ko jóg leen taxa jaka ñu màggal yonente bi jar na ko saaray saaragal na siyaaratil faara foo daare ne

ku war jàngukaay bi yàlla nga war kaaba ku war jàngukaay bi yàlla nga ga jaarem bantu borom jaarem dam yaawan saxaar di doon jaarem bantu Amin كالرجيلة في دمعة المجزى باز الفطور حميت إلا الذي جرى إلى خدمة المجتبى صفاميت إلا الذي درجنا إلى خدمة المجتبى الفطرة إلا إلا سكرت إلى خدمة المجتبى مصطفى حميد إلا إلا سكرت إلى خدمة المجتبى الفرقان Zaba كلمات المجتبى ذي الفضل لا إله كلمات المجتبى زمو خدمات المجتبى ذي الفضل

سرمدا أصلي عليه بما الملا رسول العزيز رمضان أصلي عليه بما مصطفى لحب رسول الذي سرمدا أصلي عليه بما الملا الذي نزعل عليه برمت معرك كيدون لحب رسول الذي ترمى عليه بما تجمعنا للذي ترمى عليه مصطفى برضا الذي سرمدا أصلي عليه بمدح المنام برضا للذي سرمدا أصلي عليه بمدح المنام برضا للذي سرمدا أصلي عليه بمدح المنام خديم التداس في حل يوم من حنا والكل صفيفا ليوم من مصطفى فكل سيد للخديم التداس صفيفا ليوم من حنا والكل تنيع فيها اليوم من النار طبعا عليك سلام الذي أفتخر لديه ختام بفوز اليوم عليك سلام الذي أفتخر لديه ختام بفوز اليوم سلام الذي أبدخ لديه ختام من فوز اليرى عليك سلام الذي أبدخ لديه ختام مصطفى وحافية فبخنا وخدا دندن لنا ولمن للهدى يستخاف ربنا وخلى لنا ولمن للهدى مدن مصطفى وحافية المنى وخلى لنا ولمن للهدى يستخير وحافية ربنا وخلى لنا ولمن للهدى مصطفى وحافية المنى لنا واجبا لولا يستخاف عافية حقنا دن دن دن لنا واجبا لولا يستخاف وسلم سلام على المصطفى وسلم سلام عليه يا دور على جلال المصطفى وسلم سلام عليه وسلم المصطفى وسلم سلام عليه يا جلال المصطفى Mbàkke baax maraax ban maraax ban yaay sangub sang yaa maraax ban maraax Saaliw Mbàkke baax ban maraax ban Sëriñ Saaliw Mbàkke baax maraax ban maraax ban Seex Saaliw Mbàkke baax maraax ban maraax ban yaay sangub sang yaa mën a ñaari loxo ca ko ñu màggal Sëriñ Saaliw ja ñaari loxo jago ñu magal Cheikh Saliou jërëjëf loxo. Cheikh Saliou Mbacké baax maraax ban maraax ban Cheikh Saliou Mbacké baax maraax ban maraax ban yaay sang sang yaa ban maraax ban maraax ban Cheikh Balla Fallé baax fan nga far ma gi ju xoram ma daa sab ma jox may nootal ma ma soo ma gi ma daa sab puuse xal ma jox may nootal samay may du jeex ndax tasay may du jeex woo sangu dul jeex li jaamam di jeex may du jeex ndax tasay may du jeex bay Seex Abdu Ndaam samay may du jeex ndax tasay may du jeex woo sangu dul jeex li jaamam di jeex la faale baax samay may du jeex ndaxtal say may du jeex waaw sangu dul jeex jaamam di jeex may may du jeex say may du jeex saanu waaw sangu dul jeex la faale baax samay may du jeex ndaxtal say may du jeex waaw sangu dul jeex jaamam di jeex Alla faale baax samay may du jeex ndax ta say may du jeex waaw sang du dul jeex jaamam di jeex may du jeex ndax ta say may du jeex waaw waaw sang du dul jeex ala faale baax samay may du jeex ndaxte say may du jeex loob sang du dul jeex li jaamam di jeex may du jeex te say may du jeex taajil taajil xaayaa jibi min la min baakin la mugtati ma ku ànd ak sëñ Bamba nel nii sa loxo nu màggal dama demoon géej daajil daajil xaaya yi bi mel bil baakil la mug taati داجل داجل خايا بي من بي من باك الغام تاتينا داجل خايا اي من باك الغام برم توبا امر ما داجل خايا بي من بي من باك الغام تاتينا borom Tuuba amul maas taajil xaayaay bi min bi min baakil faa muqtadina ñaari loxo ca kaw ñu màggal Sëriñ Fallu ñaari loxo ca kaw ñu màggal Sëriñ Fallu loxo ca kaw Cheikh Bara Mbacké baax baaril bara yawa moo ila simin rimame borom Tuuba في ستين آية تلاوان فيك يا في ذكر آية borom Tuuba amul ma si zikri min ayatin mutlawani bi kame zikri ayatin wa wa soppal Cheikh Balla Fally Dieng من الحياة الحياة الحياة وعندك سيد الله نلني صدق المقل جريبا عم سيح بصير معك في سكري الآية الآية الآية ذكري من آية loxo ca kaw ñu màgg Sëñ Tuubaa déglu leen ma martial Cheikh Modou Balla Fally Dieng Aboy Dial bismillah déglu leen ma martial Cheikh Modou Balla Fall jeng a góori jaal saadiq bu mag doomi Balla Fall Seex Moodu Jeng dem na aboori jaali góor yàlla ya mbër mu ma nga ne woon daaru yuuxu badali ñu daal di woo Cheikh Muntaxal Basiir mu daal di yónnee ab wataam fasaasa mu ne dareet fa daaru jëng fa suuf sa Cheikh Modou Jëng dem naa ñu daal di koy génne dugal ca wata ba wan leen gannaaw Cheikh Modou am na martaba daarul minan pinca ma fanaane ku sopp Cheikh Modou defal ñu magal bàyyi Cheikh Basiiru daarul minan pinca ma fanaani Cheikh Muntaxa moo ko yóbbu nag jinaani Cheikh Modou Dieng dem na ba ñu xëyee ba ca salaatul asri la ko rob jébbal ko rabbul xadri keroog la am lam doon mébét bu wóor a wóor Cheikh Modou Balla Fadi ko si mooy góor walay subaanoo bur yàlla mooy xaxaaru moo yóbbu Seex Moodu Jeng moom daaru subaano bur yàlla mooy xaxaaru moo yóbbu Seex Moodu Jeng moom daaru samaawu duniyaa jooy naa gembem dogal ba faw xawoon ñañu na fa jant bi jooy na ko keroog ba muuru Cheikh Modou Moustapha Dieng kiley muxtaaru Cheikh Modou Dieng walaay du tabbi baayama daayu ni gëléem ganaari Cheikh Modou Dieng wallaay du tabinaari baayama daayu ni gëléem ganaari Cheikh Modou Dieng wallaay du tabinaari baayam a daayu ni jëleelu ganaari Cheikh Modou Dieng Firdawsi nag lay jaari di yéeg di wéy di romb ñay axyaari Cheikh Modou gën gi aljana lag lay feeru Cheikh Bamba ak Rasoolu ñoo koy teeru Cheikh Modou Dieng ma daa jëfal bur yàlla xaw xana mbooleem ñayu yoo bur yàlla Cheikh Modou Dieng kamaan nga yaa dib yaaram mu ne fulaa gàkkal mu ne fulaa jëm Cheikh Modou kamaan nga yaa dib yaaram mu ne fulaa gàkkal ni fulaajam lislaam jurëy nga booleeg iraada tey wirndu faw nag saxoo ngi baada nit ku woyof la woon taam tawhiidu wa umrihi ila jinaana hiidu ñeenti noonam ya la boola daane bànneex bakkan adduna ak seytaane muhammadul basiiru jeng yow sa baay baa muhammad taale gaaya mooy kaamil ba bu doon ci xeeti téere mooy xuraano am naanu kaay laa مورد السمان بدون جخيتي دير وقرآن أبنان كايرة مورد السمان في سرخ والمغرب مسيف كويس كمني موم تكتبي بادو بيفس مسيف كويس mukk fii soo daani doyloo nga tax na mës la nooraani kenn mës sa ñëw fi moom defayu ay bor kenn mësu ko jàmbat lu jëm ci ay war kenn mës la soxlaam Seex Moodu du wër du ñaani mësu la génn daaru jëng dem añaani Cheikh Modou Balla Faali moo wakiirlu moo wóolu Cheikh Bamba ak Rasuulu Cheikh Modou Dieng jàmbaar jamaa ko wóolu mësula xul mësula dox di moolu sëqal kawar dure ci Seex Ibra Faal ngabu kurus sa xoosi kar di sa baal maa muy durus xasida maa quraan lii mooy jikkoom ya moo waroon marjaanu si xabdu jeng magam ja tarbiya moo se setaale gaaya laqta siya moo njëkk a yalwaani fa daaray jee dabam la gaaya daa xëccoo di reere moo njëkk yalwaani fa daaray jeere dabam la gaaya daa xëccoo di reere Cheikh Modou Balla Faali Jeng Baay Faal julli yi la gor dëgg yi saadix moo daa fajal bàyyi seeni jaaxle ku ma sa wopp mu ñaan nga baaxle jarag ak miski ak ñiy masloo ñoom ñëpp daa def jooxe daa ko jublu cey ku deeti jiite ak di waare moo ko fi deeti sañtu toolu jeere Seex Saaliw jëngeen be yow sa ba moo raw ca gaaña mooy ka teggi tuuba Seex Musaa ba siwru jeng sa ba ndogal bu doon watala moo yor baar ba yow Seexunaa Xaadim jeng sabaay ba dogal bu doon ak caq mooy diggal ba kàngam la woon diggante jompeeg daaru dinañ ko jooy ba faw dootu noppi faw ñu yuuxu jooy ko naa ko ay ay faay ñàkk nan walaay samsu sumaase Moodu Balla dem naa ku sopp Cheikh Mbour defe nañu magal bàyyi Cheikh Moussa samsu sumaase Moodu Balla dem naa. xayrul ani daaru jëng tey wéet na sam sosoose Moodu Balla dem na xayru daaru jëng tey wéet na budul ko la wax na sabra ci alquran ma jooy ko man faw dëhra budul ko nag la yàlla wax na sabra ci alquran ma jooy ko man faw dëhra budul ko nag la yàlla wax na sabra ci alquran ma jooy ko man faw dëhra Cheikh Mourtala Yàlla faali caat maa fi des nam nga ñu moom ba jàll ku sopp Cheikh Mourou defal ni ñu màggal bàyyi Serigne Khadim Cheikh Mourou tala jël doomi moom ba jàll Cheikh Mourou Dieng doomi Balla faali Syekh Mursala jeng demi balofali can caan fi des nan nga ci moom ba jàll naa xam mu ñaan bur bi yàlla defal ko bi Ahmadul Xadim mayra moom Bamba la moom Bamba la moom yow jaanu Balla Faali Jeng yow yaa nu moom maa ngi ñaan ku jóg taxaw ca kaw awli yàlla nga am téeméeri at jóg leen taxaw ca kaw sant sëñ Balla Faali Jeng yow oh, Bamba la moom Bamba la moom yow yaa nu moom sëñ Balla Faali Jeng yow yaa nu moom moom Bamba la moom yow yanu moom yanu Serigne Balla Fall yow yanu moom Bamba ne bi yàlla nga war Kaaba ga képp ku war jàngukaay bi yàlla nga war Kaaba ga doole Serigne Bamba bàyyi Seex Abdu Naam Bamba la moom Bamba la moom yow yaa nu moomee Sëriñ Balla Faali Jeng yow yaa nu moomee Bamba Sëriñ Balla jaral dafa ni sa loxo nu maga si borom mami bàyyi saal sama waay Bamba la moom Bamba la moom yow yaa nu moomee si borom daal Bamba la moom Bamba la moom dala jaral ni saloxo jompi bandogal ba jeere jeng yaa ki ko moom daru jeng sëriñ bala saale ko moom jompi bandogal ak jeere jeng yaa ki ko moom yaay xutbuna yaay xawsuna yaay waliyo gu mag yow la Bamba wóolu woon yaay xutuna yaay xutuna yaay waliyo yaay waliyo yow la Bamba wóolu bala baali jeng yaay xutuna yaay xawsuna waliyo waliyo xutuna yaay xawsuna yaay waliyo magal gu mag yow la daam wóolu 완료!